suñu benn moment tudd Adja responsable commission des affaires sociales et de la solidarité CAS bonjour maman et bienvenue sur ce plateau. bonjour alors CAS euh, lan la. CAS c'est la commission des affaires. Mm-hmm. de la solidarité. de l'organisation mm -hmm. des anciennes normaliennes uh -huh. de Germaine Le Goff. D'accord euh, Germaine Le Goff euh, de Thiès ancienne normalienne yi fa nekk ñoom ñooy amal benn journée boo xamante ne euh, événement bu ñu tuddee journée d'investissement humain lañ ko tuddee bu cimetière Kër Maam El Hadj bu nekk Thiès 24 novembre donc ñu lay nuyuwaat rek kontaan ci recevoir la fii ci plateau bi. waaw Bijou maa ngi lay fay. kontaan man ci invitation bi ak euh, ñi ma bokkal plateau bi yëpp. Mm-hmm. donc euh, niñ ko waxee nous sommes une organisation c'est l'organisation des anciennes normaliennes. Mm-hmm. de Germaine Le Goff. bu ñu nee normalienne dañuy xalaat jàngalekat. donc muy ñun ay mama ñi nga xamante ni de depuis longtemps déggoon ngeen ñuy wax école normale. donc ñëpp fa la ñu génne bi jour ñu may ma tuuti ma dem ci historique gu organisation bi avant may ñëw ci li ñu tax a jóg muy investissement humain bi mais il faut ñu xam quand même voilà lan lan base bi lan mm-hmm. donc c'est une organisation boo xamante ni ñu ngi juddu ça fait juste un an ni ñu ko euh, ni mu juddoo mooy on a essayé de regrouper toutes celles qui ont fréquenté Germaine Le Goff de la première à la 19e promotion. Wow. Chaque promotion comptait 30 filles. Vous voyez le nombre. Mhm. Donc à partir euh, d'un constat, une de qui se trouve à l'étranger, donc on a créé un groupe WhatsApp. <laughs> donc à partir d'un groupe WhatsApp mm-hmm. on a pu regrouper plus de membre membres waaw bon après retrouvailles yi ñu def une assemblée générale extraordinaire pas extraordinaire une assemblée générale mm-hmm. le 23 mars dernier mm-hmm. donc créer suñu organisation créer suñu amicale mais def ci nag ay commission d'accord commission yi objectif yi d'abord c'est pour venir appuyer le système éducatif sénégalais. Mhm. ndax ku ne xam na ni jàngalekat yu njëkk yi. waa du benn. ak yii. <laughs> du benn du benn. formation bi du benn. Mhm. du li li ñu utale bare na. Mhm. donc ñun ñu ne dañuy ñëw euh, apporter suñu touche. essayer accompagner le ministère accompagner les population accompagner les élèves. ci système éducatif bi. Mhm. donc ñu am plusieurs objectifs. loolu moom urgence la sax fii c'est une nécessité. Mhm. Mhm. plus qu'une urgence c'est une nécessité. on a eu à de à faire beaucoup d'activités activité bi ñu jëm investissement humain le quatre mooy sixième activité bi bi ñu créé bi ñu jógee ak léegi. récemment il y a de cela quelques jours on a équipé des village en bibliothèque scolaire. et pourtant ça fait juste un an ki ngeen créé. que ñu juddu. on a équipé le village de Ngaparou. Mhm. doté nañ ko d'une bibliothèque l'élémentaire le préscolaire le moyen secondaire fu nekk def nañ ko bibliothèque récemment le village de Ndomor def nañ ko bibliothèque. Mhm. foofu sama dëkk la. Ndomor. Mhm. Diop <laughs> donc euh, Taïba Ndiaye. on a eu on on ira à Tasset. donc tous ces villages là c'est des villages qui nous ont servi de. cadre de stage d'études du milieu lors de notre formation. mais mais fan ngeen di jëlee euh, kii bi euh, subvention yi parce que ça fait juste un an que ngeen créé wu et puis def ngeen. activité activité yu bëri. ci ci ci ci at bi am beneen wala di waajal. c'est ça l'intérêt d'être normalienne. Mm-hmm. parce que nous avons un esprit créatif. Mm-hmm. dañuy xalaat. Mm-hmm. c'est pas les moyen matériels yi rek moo mën a doxal réew mi. il faut que ñuy utiliser. suñu xel bi ñuy équiper par exemple les bibliothèques on a lancé un concept une normalienne un livre ouais. une normalienne un lot de livres et on a reçu des tonnes de livres ah. des gens à partir de nos moyens propres d'abord ensuite on a eu des partenaires mm-hmm. yu ñu jàppale ñu am vraiment suffisamment de livres nous avons une commission pédagogique éducation une commission éducation qui, qui est très dynamique ñu def trip bi xam nga duñ bu ñuy may on on reçoit mhm. n'importe quoi mhm. mais ñu def trip bi sélectionner lii dem préscolaire lii dem élémentaire et cetera mhm. c'est comme ça qu'on a pu équiper vraiment c'est ces bibliothèques c'est super léegi ku bëgg jàpp ci association bi comme yéen yéen a ngi demal seen bopp et li ngeen di def am na solo naka la mun def waaw nous nous sommes il y a la commission des affaires sociales et de la mhm. solidarité. Donc, bu euh, vous prenez les contacts peut-être après. waaw jox d'accord amul problème xëy na parce mën na mën na mën na ñëw bëgg a jàpp ci seen. association wala mu ñëw sunu siège sunu mhm. siège social mhm. nous sommes à Thiès. nous sommes à mooy sunu siège social. donc képp ku bëgg a jàppale daal boo laajtee. EFI doyen Gora Kane mm-hmm. c'est notre parrain Gora Kane mooy parrain mm-hmm. organisation bi parce qu'il fut formateur directeur des études ñu koy ñaanal la création de cette organisation c'est grâce à lui mm-hmm. ak à deux de nos sœurs yu nekk euh, kenn ki dans la diaspora on remercie au passage Khady Diop Sall ak euh, la Dabo comme on a l'habitude de l'appeler qui est au lycée Malick Sy de Thiès. ma leen di waxal ni organisation bi aussi nous ne sommes au Sénégal. Ah. parce qu'il y a beaucoup de non-maliens dans la diaspora seen loxo mi ngi ci biir. Mhm. moo tax dañuy wax une norma normalienne un jour. Mhm, normalienne normalienne toujours. et normalienne partout. en tout cas formation yi njëkk yi looloo tax mu am solo ndax dafay am ci benn euh, groupe boo xamante ne daf la ciy boole état d'esprit lay nekk donc même bu ngeen bokkatul école bi sax yéen a ngi euh, liggéeyandoo. ah nous avons l'esprit normalien. l'esprit normalien. du denc donc yéen formation bi formation bi boobu tamit ndax am yaa ngi comparé sànq yéen seen. époque bokkul ak euh, la nouvelle génération est-ce que yéen ngi misé trop trop ci formation bi. waaw mais j'espère que vous allez me laisser le temps aussi de parler de mon activité. on y va très <laughs> la formation nous nous avons reçu une formation complète. Mhm. de quatre ans. Imaginez à la formation maintenant qui dure six mois. Mhm. Durant ces quatre ans, mhm. nous faisons des stages en classe, de théorie pratique. Mhm. Durant les vacances, on, irait, on, on, on allait au village. dañuy dem def stage étude du milieu. Mhm. jàng nu ñuy vivre avec les populations rurales. Mhm. looloo tax suñu livre yi bi ñu koy joxe ñu dellu ci population yooyu fi ñu daan defee. xam ni stage yi. pour delloo leen jukkal. c'est important. léegi événement bi événement bi. maa ngi lay wax sànq ni la on a plusieurs commissions. Mmh. on une commission éducative qui tout s'occupe de tout ce qui est commission sociale. Mhm. commission environnement culture. Mmh. on a commission partenariat et recherche de moyens. on a mhm. commission des sages ak commission à l'organisation. Mhm. léegi événement bii ñu jub dañu am benn sœur bu nekk Italie. qui s'appelle Ndeye Khady Diagne. qu'on mm-hmm. remercie de passage. papam c'est feu Naatago Diagne bi nekkoon il fut maire à Thiès. Mm-hmm. mu jóge Italie dem doon ziar papam mm-hmm. fekk si matière kër maam Alaaji vraiment dans un état. boo xamante ni vraiment neexu ko woon. kii ku war a participer la papam fa la ne. ah. dem. dina dinaa ñëw ci loolu. maam maam El Hadj yi. kër maam El Hadj Amadou Baro Njëgeen. dëgg la. donc mu nekk cimetière yoo xam ni ñu bari ñu ngi ko tëdd. Mhm. ñun comme on prône l'hygiène un corps sain un environnement sain. Mhm. vraiment ñu ne nañu moom Ndeye Khady avec sa famille. Mhm. ñu ñëw indi le projet parce que Ndeye Khady fait parti de la commission CAS mu mm-hmm. indil ñu projet bi ni dafa bëgg ñu def investissement humain mm-hmm. set setal vraiment cimetière yi ku bëgg a participer fa ban heure lay ñëw fekk leen léegi ku bëgg a participer c'est à parti de huit heures mm-hmm. mais parti kii euh, set setal bi ak euh, prétexte la rek y a beaucoup de choses parce que bu ñu set setalee te l'environnement sensibiliser wu ñu leen du am suite. Mhm. mën nañu set setal tey suba ñu ñëw fekkaat mu nekk dans un cadre bu doy waar. en tout cas ñu jël école yi nga xam ne dañu nekk aux alentours. Mhm. ñu sensibiliser leen defal leen un concours de rédaction. Mhm. sur l'environnement. c'est super génne ci huit élèves quatre dans chaque établissement ce jour-là dañu leen di primer. Mmh, pour ñu sensibiliser. seeni élèves yi mhm. au maintien de des lieux propres mhm. y a trois daara qui sont autour des cimetières mhm. ñu gis daara yooyu sensibiliser leen dañ leen di offrir ay dons. en tout cas set euh, setal sensibilisation lay doon le 24 novembre temps bee ñu xoj xam naa ne liñ nar a waxtaanee yëpp du xaj si biir émission bi mais ñi ngi leen di jox yéen ñëpp rendez-vous ñi bëgg participer ak ñi bëgg dégg li nga xamante ne waa kaas ñi ngi koy wax ci wàllum hygiène ak set setal ak fonk environnement le 24 novembre fële ca cimetière kër Maam El Hadj à Thiès ñu bàyyi la nga tàggoo rek di la remercier bu baax ci sa passage ci plateau bi. waaw may remercier tout le monde mais di remercier surtout sunu parrain Gora Kane mag la macha allah mais il nous accompagne il fut formateur daf ñu doon jàngal ñu bare mais muy mag mu baax di ñu jàppale may remercier aussi toutes nos sœurs normaliennes vraiment one est deetu d'être normaliennes remercier Ndeye Khady la porteuse de ce projet. Mm-hmm. Ndeye Khady Diagne doomu Naatago Diagne. Mm-hmm. dañ koy remercier di ko ñaanal. Mm-hmm. di wax nag képp ku ci am benn parent bu tëdd foofu kër maam Alaaji ñu ngi lay woo. dinaa ci dimanche incha allah à partir de huit heures ñu set setal. joxe ay don jàng alxuraan. wàcce kaamil ñaanal ña fa tëdd. vraiment jox sunu doom yooyu ay lauréats yi ay cadeaux. ba déwén incha allah. merci beaucoup maman Adja ne John donc Mamadou Ndiaye dina ñëw dimanche incha allah doomu bale bi <laughs> ndax euh, bale ngi foofu ci cimetière yooyu ñu la remercier bu baax ci sa passage ci euh, <laughs> place génn leen ci man. <laughs> on y va Pape dina ñëw moom incha allah. Euh,